maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñi fi daje ñëpp euh, di leen jaajëfal di leen baalu àq nag di leen remercier bu baax a baax di euh, jéggalu sénégalais yi ma war a jàkkaar lool tey liñ ne wax waxaat du bari wax waaye setal sa der la loolu moo ñu dajale tey defe naa ba tax ma am euh, tuuti lu ma bëgg a wax ak sénégalais yi ndax sama doomi bopp yi ma jural sama bopp ak sama ñaari mag yi nga xam ni mën ak ñoom ñoo bokk benn yaay man dong ma siiw ci famille boobu euh, ñuy dégg lu mel ni ay yu ñaaw a ñaaw yuñ may teg ñu war a dëkkee ay demantir ak naqaru xol loolu tey moo ñu dajale ak samay soppe yi nga xam ne dañu ma bëgg ak ñi ma yàgg topp yépp looloo ñu dajale tey bëgg leeral rek. ñu gis ci un certain moment ñu ngi doon euh, am coow ñu ne sax sa diggante ak Viviane dafa bari coow euh, naam mosoo cee addu wala adduwoo ci directement wax lan moo waral euh, séparation am seen diggante mais tey ci suba si dañu yeew gis vidéo boo xamante ni kenn koo xamante ni yéen a bokk liggéey bi muy Kouthia di wax ni yow ak Viviane dafa am loo leen sekk ba ñu bett leen déjà boo ñu doon leeral loolu ban éclaircissement nga ñu jox ak déjà bi nga gisee vidéo bi lan moo njëkk a nekk sa réaction. Zeyna ku ni ma. toogee nga xam ne ni ma yeewoo neexuma ah te maa ngi ñaan yàlla début ba fin yàlla na ma yàlla gën a may dëgër ak dal parce que yàgg naa am xëy na lu ma metti ci milieu showbiz mais tey naqar bii ma am mosuma ko am parce que li tax ma am naqar du liñ ma waxal maak Viviane wala euh, baatu giwin bi loolu mettiwu ma drapeau xaw ma num tudd drapeau LGBT bi nga xamante ne man teg nañ ma taf ko loolu moo dagg sama xol parce que réew mi ku ne dégg nga càgg giwin góor jigéen kon loolu waruma mën a metti te ki nga xamante ne moom moo ma ko waxal ku déglu audio bi di nga xam ne ay waxu fen la mais juste rek dama bëgg euh, euh, leeral ba pare euh, wax sénégalais yi ne leen man El Hadj Abou dafa mel ne dama am ak moom problème boo xam ne yëguma ko te souvent baax na nit bu la jëlee di la waxal yu ñaaw lu ëpp fukki at te xamoo yow loo ko def baax na ngeen dem ci kanamu yoon yoon atte leen pour nga mën a xam nit ki bu dee dama koo tooñ ma baalu ko ci kanamu yoon sama digganteek moom jàmm am ci bu fekkee ne nag tooñu ko moom moo ma buggul parce que xëy na moo xam li tax bugguma mu wax ko devant tout le monde yoon tàqale ma Kouthia ba faawu parce que fii ma yegg si tey dama bëgg sénégalais yëpp déglu ma ak xel te bañ ma déglu ak xol ndax c'est la première fois ma tudd baatu Kouthia nar cee teg ay mer bu ma mer ci moom mën naa am ba ma àndeek moom ba tey awma dara lu ma neex mais c'est la première fois tey ma taxaw pour leeral pour sénégalais yi xam mooy kan Euh, El Hadj Abou Bilal muy Kouthia maa ko xam 2011 ci benn euh, restaurant bu ñuy wax Obama bu nekkoon jëppal ma demoon fa reeri ànd ak samay copines ba ma demee reeri place ba ba ma yeggee boo siiwul boo gisee ay nit ñu siiw da ngay méfier wu parce que étranger ngay nekk ci seen biir ba ma yegsee ñi ma àndal ñëpp naan pourtant diwa nga ne ndax du Kouthia rek fa nekkoon ku ñuy tudd diwa nga ne diwa nga ne man ma toog fi ma toog yëngatuwuma ba nit ñëw ne ma yow de dañ la war a def ngay liggéey rajo ndax rajo da laa jàpp xam naa ñoom luñ mës a def la pour am ci ay jigéen man Kouthia musuma ko demander aide xaw ma Kouthia Kouthia ba àddina sosoo bu weesoo plateau yi nga xam ne toog nañ ko liggéey maag Kouthia musuñu toog waxtaan communiquer Kouthia xamuma man xaw ma Kouthia naam ba may xale dama ko daan seetaan mu nekkoon comédien bu ma neex ndax ni mu daan toppandooyee nit ñi ku ne yàgg nga déglu Kouthia ba ngay xale ci rajo yi mu lay reetaanloo loolu laa xam ci Kouthia ba jour bi ma dajee ak Kouthia ci benn restaurant bu tudd Obama moom ak ñeneen ñu siiw nekkoon fa nit ñëw ne ma dañ la bëgg a présenter xam nga Kouthia ma ne waaw Kouthia dama koy dégg mais xaw ma ko ñu ne ma dañ la koy présenté pour mu jàppale la ndax yow dangaa rafet nga liggéey rajo RFM la ne sama xarit ne ma indo yow da nga bëri tiitar ñi ma àndaloon ñi ngi may seetaan ku mel ni ndey xujja ak ndey faatu xumma ak Pa ñooñu lañ àndaloon reer yi jour boobu laa mës a dem ci bërëb boobu jour boobu laa fa mujj ndax man li may génn bariwul bañ ma présenté Kouthia Kouthia moo déplacé wu ci taabalam ñëw ba ci man ndax bañ ma ko présenté man rus naa jug parce que dafa bëri woon ay nit damay rus a traversé nit yi nii rek dañ ne ma Kouthia ya nga ne nuyu ko ma ne ko nii moom mu juge taabalam ñëw ci sama taabal parce que jamono jooju peut-être tuuti naa bokkul ak tey euh, def ay piercing te piercing xewul woon te am na yoo xam ne boo ko defee ci sa kanam dina attirer góor mu déplacé wu ci table am ñëw ci sama table ne ma ça ma ne ko ça bien mu ne ma noo tudd ma ne ko man Endo temps yooyu Endo mbay lañ ma doon woowee ñi ma xam ñëpp xam nañu ma. mu ne ma Endo yow kay da ngaa rafet moo tax ñu lay wax Endo ma reetaan ne ko merci beaucoup. mu ne ma yow yaa bëgg def euh, rajo ma ne ko ah waaw mu ne ma yow duma la yóbbu rajo télé laa lay yóbbu jox ma sa numéro téléphone ma présenté la Met Diop. temps yooyu ku tudd maître Diop moo nekkoon RFM directeur général bu RFM man xaw ma kuy maître Diop. Euh, bañ ma présent ba ma ba ma joxee Kouthia sama numéro Kouthia ma dem mu dem woowu ma woowu ma woowu ma woowu ma ba benn jour affaire bi def na un mois Kouthia dog ma woo ci defe naa 77 0300 ma wuyu kooku kan la boobu sama doom a ngi am su ma juumul 4 ans. ma wuyu ça va la indo ma ne ko waa kookan la mu ne ma El Hadji Abou Bilal rek ma jug fi ma tëddoon ci canapé bi ndax kontaan naa comme woo na ma te waxu liggéey lañ wax ma jug ci canapé bi di wax ak moom di jaabante ci biir salle bi naan ko waa Kouthia noo def man sax sa numéro bi dama ko pertoon moo tax woowuma la mu ne ma ax ah, yow kay doo dara boobu ba tey déggantewuñ ma ne ko billaahi damaa xamul appel yi ban moo ciy sa numéro ndax damaa enregistré sa numéro mais bindu tuur mu ne ma waa juste dama la doon wax ni ndax yaa ngi ci liñ doon wax ba tey ma ne ko ah maa ngi ci kay ma ne ko man ma commencé di yërëmtalu ndax jigéen laa divorcé naa awma liggéey bëgg naa liggéey ma ne ko maa ngi ci kay ma ne ko man ku caa damaa divorcé am doom bu am 4 ans ma ne ko te bugguma mukk nit ñi gis ma ci lu du liggéey ma ne ko te sama jëkkër bi ma divorceel rus naa tas ak moom Kaolack ñëw ba dakaar mu dégg ma ci ñàkk fayda mu ne ma dinaa la jàppale ba du la dégg ci ñàkk fayda mu ne ma baax na dégg naa la dinaa la woowaat mu coupé ba mu coupé aw yaakaar xalaatuma sax ay nopp ak yooyu comme euh, jour biñ gisantee ci réseau bi lendemain bi woowuma waxul ak man dama naan kii nobu ma xalaatuma yooyu kon mënumaa préparer sama bopp alors ñu dawalaat beneen 15 jours rek mu woowaat ma ne ma allo ma ne ko waa kookan la mu ne ma El abu bilaal Bilal ne ko waa Kouthia na nga def mu ne ma yow sama numéro enregistré ko ma ne ko ankay maa jaar ci sa tur fekk na man nit boo xam ne laa ba nii may wax ak yow tey soo ma présenté sa nit bala maa enregistré numéro am lu leer moo ñuy boole man du ma tëb enregistré nit soit dama koy fàtte soxla ko di ko wër wala ma xam ne kii xaw ma ci lan la may war a intéressé ba ma koy enregistré mu ne ma léegi dama lay jox rendez ma ne ko fan mu ne ma xam nga kër jiboka ma ne ko kër jiboka mu ne ma waaw da ngay ñëw tele ba kër jiboka en face nga dugg ci koñ boobu ma ne mais kii li tax mu wax ma kër jiboka te télé bi nekk Médina ndax man boobu xaw ma Dakar bu baax miinu ma fi pour man RFM Médina la nekk mu ne ma noo télé bi mi ngi kër jiboka ma ne ko kër jiboka fu mu ne mu ne ma soo ñëwee ba euh, rond point Gondal wetu méridien tali bi jëm méridien man xaw ma méridien mosuma dem méridien ma ne ma ne comme dafa may expliquer bëgg ma jàppale du ma nekk sax di ko wan ne ko xaw ma ko muy découragé di coupé ma ne ko waa xam naa ko pour bu ma coupé Kouthia rek ma laajte koñ bi mu ma wax ba ma yegg loolu c'était 2011 ma am doom dëkk te Port sama doom am quatre ans ma jël scooter laa dawal ànd ak ku ñuy wax Elage euh, Konaté mi ngi France di ma dégg sama benn frère Medoune xam na ko Mm-hmm. waa Colobane lañ dañuy jaay dàll. El Hadj moo taal teem ak sam man sax maa dawal ba ba ba TFM maak El ak may tooñ ma ne ko bàyyil ma dawal ndax ñu xam ne am naa jàpp pour ko mu yomb ma daa di dem ba ma nee cëpp TFM yàlla mi dara tëwul ma dugg TFM fekk mu nekk kër ma laajte laajte ba fiñ ma wax ma ne ko allo Kouthia mu ne ma ma ne ko yegsi naa buntu kër ji ba ko rek Kouthia génn ak benn sabadoor bu marron ak jiin la sol sabadoor bu marron ak jean génn jour boobu Kouthia génn di ma jël restaurant biñ daje xooluma ci Kouthia bu baax jour bi ma Kouthia di jël si pour ma dugg TFM laay soog a xool Kouthia ne kon kii mooy Kouthia ok ñu dugg naka lañ dugg TFM automatiquement rek ma ne ah fii de kër la ndax ba ma duggee man gis naa ay lal foofu gis fa ay kuddu gis fa lu ne ndekete boobu kër la ñu koy aménager tele Kouthia ne ma kër gaa ngi nii ma ne ko ah dëgg la kay ma toog ba ma duggee toog rek Bouba Ndour yegg si ba Bouba nduur yegg see ne ma ça va na nga def ma ne ko sava va bien mu dem dëpp ne ma koy seet ma ne ko man Kouthia moo ma fi indi dama war nee na dafa war a def ak man benn benn pilote pilote lañ ma waxoon mu ne ma dañuy def benn pilote ok dañuy def benn pilote Bouba Ndour ne ma pilote yow ñaata at nga am ma ne ko man du ma xale de sëy naa ba divorcé am doom mu ree mu ne ma sa ñaari pompon yi nga mel ne lus kalarita après mu ree dem jamono jooju buuba nduur du ko caa ku ne xam nga Bouba nduur ndax mi ngi sëy ak Viviane euh, rakku Youssou nduur la ba ma ko gisee xam naa ne ki yey Bouba mu ne ma ok c'est bon Bouba génn dem Kouthia dugg ci biir génnaat ñëw ne ma ñëwal ñu enregistré pilote bi yàlla mi dara tawul intention Kouthia foofu mënuma ko woon xam ndax man nekkuma ci xelam man mënuma xam ndax Kouthia daf ma dugal ci télé bi pour wan ne ma laa yegsi nga ci télé bi dugg nga am nga liggéey pour mën a jaar ak man feneen mënuma xam lu ne ci boppam mais man sama bopp laa xam ba ma duggee rek nekk ci studio bi automatiquement sama xel dalul ndax maa ngi naan man de xalaataguma sax ay nopp ak ay ñàkk fayda mais dama ne ak ah, fii ñu ma dugal nii duma ko réussir parce que man mësuma def tele dégguma tubaab jànguma xawma lan mooy télé c'est la première fois ñu dëppal ma caméra lii duma ko réussir ma wax ko ko ma ne ko ay Kouthia xam naa de ba ma gisee caméra yeeg yëpp nag ma am confiance ne ko xam naa danga may jàppale de mais lii moom duma ma ko réussir mu ne ma ankay dinaa la jàppale pousse la di ko réussir mais Kouthia fi ñu toogee yàlla bu nee waaw waaw rek lay doon ñu def pilote bi mu ne ma yaay indo ma ne ko maay indo indo na nga def yaa ngi seetaan yaa ngi ci TFM sénégalais yaa ngi lay seetaan ñu def émission bi mu wax ci ma tontu ñu def dialogue man ak moom. Mhm. affaire bi famille Youssou nduur ñoom dañ bëgg lu leen di reetaanloo. Mhm. man xaw ma ne ñoom ñi ngi ci rési bi di ma seetaan Ibou nduur ak njaga nduur ak buuba nduur ñi ngi ci rési bi matériel yi bees. Mhm. ñu doon ko installé. kon Mako caa ñi ngi ci studio bi mais ñoom ñu ngi ñuy gis ci rési bi. ba ma paree dem sama yoon ñibbi. defuma ci sama yaakaar parce que dama naan ax ah man de fii defuma fa lu luñ may jëlee mhm. et puis foofu wéet na wéet boo xam ne man gisuma fa kenn xanaa ñu may jël ci télé dinaa gis ay nit ndekete Njaga Nduur Ibu Nduur Buuba Nduur ñu nga ca rési bay monté seen i matériel mhm. ok ku caa pare dem rési di seetaanaat man ak moom li ñu def ñoom ñëpp ñu koy xool di ree Ibu ak Njaga ak ñoom ñëpp ne ko xale bi dafa intéressante dafa sax xorom dafa firi moom sax ñaata at la am Kouthia ne leen moom am na doom ba divorcé na ndax Kouthia moo ma nettaliwaat lii man loolu fekkuma fa mu ne ma gars yi intéressé wu nañ ci yow de ba mu ma woowee ay deux heures fekk pare nañ en enregistrement ay 18 heures ma ñibbi ay 22 heures 23 heures rek ku woo ma ba ma woowee nag ci laa ne soit day nekk waaw jël nañ la wala déedéet ku woo ma ne ma aloo Endo na nga def ma ne ko élage na nga def yaa ngi ci jàmm mu ne ma ça ma ne ko affaire bi noo ko gisee mu ne ma topp ma ne ax ah kii kii li mu bëgg waxu ko de kii dafa may nax rek ba mu nee topp nag ma ne lii yomb na dafa yomb trop trop trop ma dugg ci télé bi noonu enregistré benn yëf maîtriser wu ma ko ñu ne ma topp ma ne xaama bàyyi sama xel nag ci laa commencé nag jour boobu laa commencé di bàyyi sama xel ci Kouthia ci boppam ñu toog ba ci laan demee nee na ma topp le lendemain 11h Kouthia woowaat ma te te ku caa xamante nañ ay presque mois wala deux mois mosuma woo. Mhm. ñu gisante face à face bëccëg def benn pilote muy commencé di ma woo chaque jour. Mhm. ma ne ah naa ko déglu parce que wërsëg fu ne lay juge mais bu ma fàtte mukk ni man dama tas ak sama nawle yor doomam te am na fu ma nit ñiy xaar. Mhm. man loolu laa mës a jiital ci sama yoon. ok Kouthia xëyaat la 11h rek woo ma ça va Endo def ma ne ko maa ngi mu ne ma tey nag dangaa am rendez-vous ak yuusu nduur ma ne oh du jàll. kii nee na man lay kàmbal lii du jàll. démb pilote bi ok tey mu ne ma Youssou Ndour la soxla ma ne kii daal lii du jàll. kii man lay nax lii du jàll. ma wax ko sama xarit yi am ak El Hadj ma ne leen Kouthia dafa neex ñu ne ma bàyyi sa xel rek nante nga. man damay toog ak ay góor waxu góor laay wax yëfu góor laay def ma wax ak xale yu góor yi ne leen mais léegi kii daf ma bëgg a nax waaye léegi na ma dala mën a nax xanaa dootoo nante bàyyi sa xel yow demal rek léegi déposé waat ma chaque jour élage moo ma daan déposé mu déposé waat ma TFM jour bi mu ma ne Youssou Ndour euh, moo la soxla maak lees ñuy wax ci yoon bi ma ne ko lees xam naa damaa nar a yegg rek mu ne ma finalement Youssou Ndour daa am réunion ñëwul wala nangam du ma gis Youssou Ndour ma yegg si dugg rek damaa toog 5 minutes Kouthia daf ma nuyu ça va ma ne ko ça va bien mu ne ma toogal fii ma toog dama toog 5 minutes rek Youssou Ndour jóge ci porte bi ci gannaaw dugg biir TFM. mi ngi sol Aziz bu weex tàll moom i tamit ak pantalon jiin loolu duma ko fàtte ba mu duggee biir TFM Youssou Ndour ñëw ne ça ma ne ko waa tonton ça bien mu dem romb ba mu rombee Kouthia ñëw ci man ne ma grand bi ñëw na léegi xaaral. après ñu gis ko nag foofu nag sama xel dal ma ne ah kii de daf maa bëgg a jàppale te yàlla tax xam naa parce que kii lim def nii yëpp ci deux jours ma def pilote pilote bi ok ñu xëy mu ne ma yuusoo la soxla ma ñëw wuyu si gis Youssou nduur ma ne leen lii moom dootul caaxaan ndax Youssou nduur dugg na ci affaire bi dootul fo ma pare ñu gisanteeg Youssou nduur foo xamante ne ci télé bi moom la njëkk def salle de maquillage waañ la woon ba muy nekk kër ndax fa la boo assiette yu bari nekkoon. Youssou Ndour recevoir ñu foofu mais avant moment recevoir comme Kouthia moo ma fa dugal dañ toog di xaar man ak Kouthia Youssou nduur ne euh, Abou Bilal Kouthia ne ko waaw mu ne ko kaay. ñun ñaar Kouthia di jug rek na ma ñu dem. ñu duggandoo Youssou ne ma ça va na nga def noo tudd mu ne ko Amina la tudd mooy kii ma fi indi ah, Amina ça va bien ma ne ko ça Youssou ne ma may ma deux minutes ma wax ak Kouthia mhm. normal na ndax Kouthia moo ma fa yóbbu mhm. ma génn mhm. Kouthia ak Youssou ne ci biir ba ma toogee maa ngi naan ah Kouthia de moo ma indi ba fii xanaa du wax ak Youssou lu ma war a yàqal xam nga rek Sénégal toujours da ngay am xel mu teey ma ne waaye ah bëgg na ci ndam parce que nee na ma pilote bi ok na fexe na ba ma am rencontre ak Youssou Ndour fekk na Youssou nduur ay frère ñëw na ñu wan ko pilote bi mu ne leen kii kala ñu ne kii di ku ci am moo ko fi indi mu ne leen xale la de mais jéem leen ko toppatoo ngeen xool âge am bu fekkee ne mat na pour génn télé ngeen génn ko si télé bi mais bu fekkee majeurul bu mu génn si télé bi parce que tele bi liir la te bu ñu fi génnee koo xam ne mineur la euh, noon yi mën nañ ñu topp indil ñu problème ay raqam woowaat ma ne ma mais peut yow ñaata at nga am ma ne leen man am naa presque vingt-deux ans ma leen sama âge yëpp ñu ne ma ok mën nga ñu indil sa pièce d'identité ma ne leen man de ba ma divorcé sama pièce yu bëri ak sama passeport dafa réer këyitu itali laa am mais sama papier yëpp dafa réer mhm. ñoom ñoo ma defaral këyit ñoom waa TFM këyitu juddu laa indi ñu xam sama age normal pour mën ma defaral beneen carte d'identité ak beneen passeport mhm. loolu ba tey c'était 2011 Youssou Ndour ba mu waxee Kouthia daat ne ko woo ko Kouthia woo ma ma dugg bureau tonton Youssou ñu toog Youssou ne ma ça va ma ne ko ça bien mu ne ma mës nga def télévision ma ne ko déedéet mu ne ma man daal lenn rek laa la mën a wax comme Kouthia moo fi indi xam nga te Kouthia moom nit ku baax la te yàgg na ak ñun loolu waxu kilifa la. jàpp ko nga topp ko ma ne ko amul benn problème. fale la yem ak man point yëkkati 20000 francs moom Youssou Ndour ne ma am paasal. ma génn dama génn rek Kouthia génn ma ne ko kon maa ngi dem mu ne ma maa ngi lay woo léegi ma génn ñibbi. ba ma yeggaatee sama kër sama frère bi ma àndal élage na ma mais est-ce gis nga grand bi ma ne ko billaahi mu ne ma noo fis dal nga ci ma ne ko lii kay dootul caaxaan booy mhm. ma commencé nag ci sama bopp ma xam ne maa ngi waaj a nekk dara mhm. parce que lii dootul caaxaan comme dem naa ba gis Youssou Ndour ma yegg mag sama waa kër yi ñi may toogal élage ak ñoom am waa Colobane yi ñuy waxtaan ci affaire bi waaye yow ba nga gisee Youssou Ndour noo def ma ne leen man kay xaw ma sax lu may wax mais yow da nga ko waroon a wax lii lii ma ne leen man dama rus aw ma lu ma ko war a wax man daal kom neena ma valide na ma rek alhamdulilah. ma daal di ñëw toog timis julli ba pare rek ku caa woowaat ma ma ne allo mu ne ma waa Endo na nga def yow de macha allah dal nga ci am nga chance de. grand bi dafa gis pilote bi rek validé. Uh-huh. ma ne ko ah alhamdulilah j'espère que affaire yi moom dina dox xooluma ci xaalis xooluma ci dara. Uh-huh. man naa ne ngéej génn si télé bi rek. Uh-huh. yeneen opportunité dina ñëw. suñ may fay juróomi dërëm sax man xooluma si loolu yépp ma daa di ñëw. première émission bi Kouthia ne ma suba lañ koy démarrer te direct lay doon préparé wul muy Kouthia Show ñu tegal ñu ñaari tabourier ma nekk xale bu ndaw tuuti ba dee. ma ñëw toog ba ma toogee ma ne man nag. caaxaan jeex na dëgg des il faut que ma créer ay affaires yu neex. ci laa commencé di créer poté laa njëkk a créer. poté ñoom El Hadj seen benn euh, frère bu doon wax euh, dafa gaañu yàlla na ko yàlla xaree àjjana moo ñu joxoon moowu poté bi kolobaan la nekkoon. ñu créer poté parce que da daan def luñ teg rek mu ne noonu lii dafa poté ay ceebu yàpp ay pëyaayu poté lu mu wax ne mais xoolal kii dafa poté affaire bi amoon jàpp ci man neex ma ma indi ko ci tele bi. ba ma ko indee ci télé bi poté boobu moo ma lancé Kouthia bu ne indo rek ma ne ko indo bu poté ngay am foofu lu mu wax ma ne ko poté lu mu wax ma ne ko poté émission bi foni ñu gis ne TFM télé bu bees la xam nga soxla na mm, ay divertissement lu foni ñu ñu doxal ñu doxal tak première émission maak Kouthia deuxième émission maak Kouthia su ma paree émission rek damay taal sama moto dem ñibbi ba benn jour euh, une semaine ñu def émission une semaine may ñibbi di jël taxi mu ne ma tey xanaa euh, indiwoo sa moto ma ne ko déedéet taxi laa laay jël parce que moto bi élage da ko yóbbu mu ne ma d'accord léegi bàyyil ma yóbbaale la ma ne ko ok Kouthia ne ma ban côté ngay wàcc ma ne ko man si Port laa dëkk mu ne ma kon man maa lay njëkk a wàcc liberté laay wàcc man jamono jooju sax xaw ma Dakar xaw ma fuy liberté sama kër rek laa xam Kouthia ñu ñëw ba kenn fenn si ruq yi rek mu ne borom taxi bi may ma fii ma wàcc. Mhm. mu may ko mu wàcc mu ne ko déposé ko moom moo fay taxi bi. taxi bi yóbbu ma ba sama kër. Mhm. mais léegi nag sénégalais yi commencé nañ ma xam. Mhm. commencé nañ ma xam bañ ma commencé xam benn jour ñu pare émission rek ku caane ma tey moom dama lay invité ataaya defaguñ tournage direct lañ war a def looy wax dama naan déedéet. du ma ne déedéet dama ne ko waaw. ñu pare tournage def tournage bi pare def yëpp mu ne ma kiiyal ñu génnee yow génnal ci bunt bii kenn bañ ñu gis man ma génnee ci buntu bee ndax TFM ñaari buntu la loolu tey na xel de mm. ma daa génn ci bunt bi ma wax taxaw fa mu ñëw parce que bu ma bu ma bu ma génnul ci bunt boobu daw te ma war a gisante waat ak moom def émission suba dina metti mm-hmm. ma génn xaar ko ba mu ñëw mu ne ma il faut que ñu dem liberté sama benn kër xarit naa ni ataaya ma ne ko man de xoolal dama taxaw di la xaar sama nuru bi woo ma ne ma sama doom yaramam dafa tàng mu ne ma ah bon ma ne ko ah, mu ne ma kon dawal mhm. ma daw ñibbi rëcc naa ñu defaat émission mu ne ma tey moom dinañ dem si sama xarit bi sama xarit bi da la bëgg a gis ba pare dafa téye dafa bari xaalis marlon ma ndimbaa la tudd jarbaatu ma dikke ñaa la yaayam ak ma dikke ñaa ñoo bokk ndey baay man kii lu muy wax xaw ma ko lu muy wax man turu Marlon xaw ma koy Marlon de mais dama ko jàpp ndax Marlon moo ma génne TFM man turu Marlon ma ndimbaa man dama bëgg xam nu Marlon mel ah, ma ne ko kucc mu ne ma ma ne ko sama bon bi de ñëwul te sama doom dama ko dénkaane sama dëkkandoo yi ca suba ba tey bàyyil ma dem suba ma organiser wu jar na sax ma indaale ko ci bu émission bi jeexee ñu dem si sa xarit bi mu ne ma d'accord ñu parewaat émission loolu def presque ay vingt huit jours vingt neuf jours ñu parewaat émission mu ne ma non pot tey moom dañuy dem si si si invitation bi ma ne ko cent pour cent mais boobu amatuma lu ma ko lay lay naa ba sonn daw naa ba dee amatuma lu ma ko lay mu ne ma tey dañuy dem ma def ko yëfu saay-saay. boobu lan moo indi woon lay bi sa xel dafa teeyoon. ci dafa am lum la bëggal wala. man du ma dem si invitation ku ma xamul. xam naa ne bu ma demee dara du xew. mais bugguma comme télé ne. nit gis ma. fu dul télévision di ma baatal pour lan man may pare liggéey di ànd ak samay boos ci ay ruq ak néeg man naanu ma attaaya fenn naanu ma attaaya mhm. mais dafa mel sa biir wax da mel ni da nga yàgg ñaaw njort ci Kouthia ba ma commencé di insister ci ci ci invitation bi sama xel dalatul ci moom jour bi nga xam ne ci la ma mujjee wax waxu invitation bi dana ma tey dañuy dem ma ne ko d'accord dañuy dem mhm. muy sol ay summeeku di sol ay yéreem pour ñu dem ma daw ñibbi waaw damaa daw foofu moom parce que amatuma lay damaa ne poccet génn rek daw man ba may daw xam naa ni jour boobu laay gëj TFM ma ne man invitation bii bu yeboo sama liggéey yàqu mais man duma si dem parce que lu mu wax dafa clair sama xarit laa lay présenté dañ la bëgg a gis ah télé opportunité la bul foowee sa bopp mën nga cee am lu ne sama xarit bu ma lay présenter yaayam ak ma dikke ñaa ñoo bokk ndey ak te xam nga ñoom ma dikke ñoo nekk pouvoir fi mu ne man yu may wax sax man xaw ma woon loolu xaw ma woon luy ay pouvoir man man léegi laa bokk nii connecté wu forcé sama bopp xam affaire yi ma ne ko ok ma génn daw ba ma génnee daw toog toog toog ku caa woowu laaj ma foo taxawee ana nga gisuma la ma toog julli timis julli gee mais man toujours maa ngi naan Kouthia su ma woowee du ma wax jàmm gis nga sama téléphone bi dafa sone rek sama fit bi ni tëf ma ne kii duma wax jàmm tey allo Endo ma ne ko waa ça va euh, Kouthia na nga def mu ne ma maa ngi fi man daal dafa am benn affaire bu ma la bëgg a annoncé. loolu yëpp c'était 2011 29 jours laa ànd ak Kouthia ma ne ko loo ma bëgg a annoncé mu ne ma waaye man de euh, ñi gérer société ressources humaines. Mm-hmm. ressources humaines waaw loolu la ma wax. Mm-hmm. mu ne ma man de xaw ma sax luy loolu mu ne ma man de ressources humaines bi ñoo ma woo léegi ne ma. il faut que Amina arrêté émission yi parce que dafa vulgaire ay mbàkke mbàkke ñoo woote ci tele bi ne xale bi ay waxam dafa vulgaire gis nga foofu man xam naa lu ko di wax yëpp du dëgg ma boole ko nag di lox tiit parce que xam naa ne génn naa tele nit ñi commencé nañ maa xam commencé maa apprécier te kii dafa nekk pour yàqal ma ma ne waaye garaawul ma ne ko ah léegi nag mu ne ma non léegi yow daal toogal nga dëglu parce que ñoom fi mu ne nii comme bëggatuñ la yaa ma gën a xam famille Ndour buñ la bëggatul dañ lay xeex te ñoom nee nañ sabaa va ma ne ah mu ne ma waaw ci saa si ma lijjanti ba am ma woo ko tudd Dorine Gueye Dorine Gueye TFM la ne woon ñëpp war nañ ko xam taa Dorine laa ko daan wax ma ne ko dorin mu ne ma ma expliquer ko affaire yëpp nu mu demee mu ne ma ah ma ne ko waaw ma ne ko man de Dorine mu ne ma man de xam nga lii du ma si mën dara poté waaye léegi nooy def mooy ma ne ko jox ma numéro njaga mu ne ma xaama yónnee la ko message dorin Gueye yónnee ma numéro njaga Ndour message boo déggee xale yi naan tonton njaga tonton njaga ci laa xamanteeg njaga ba ma ko joxee ma woo ko ne ko allo tonton mu ne ma waaw ma ne ko kii moo ma jox sa numéro maam dorin mu ne ma kookal la ma ne ko man maay ànd ak Kouthia ci émission bi man la indo euh, mhm. mu ne ma waaw ça va na nga def ma ne ko ça va bien ma ne ko man de damaa toog rek Kouthia ne ma nañ arrêté émission bi parce que ressources jumelles mu ne ma ne ko nee na parce que kii yi ci kaw kilifa yi ci kaw. Mhm. ñoo ne ñoom bëggatuñ ma ndax man dama vulgaire li ngeen di jot ci ay kalaame dafa bari ci man mu ne ma ah mhm. ma ne ko ah man de loolu la ma wax. Mhm. ma ne ko te jaaxle naa torop. njaga ne ma baax na dinaa la revenir. revenir uma revenir uma ba ca lendemain ba man ma woowaat ko. ne ko allo tonton man dégguma la man la Amina affaire yooyu mu ne ma. lii man duma ci mën dara parce que télé bi bébé la mu ne ma te télé bi soxlawul coow te tey comme yow moo la fi indi ngeen am problème mu demee nii yuusu nekku fi Boubacar nekku fi boobu yuusoog Boubacar ak euh, Viviane dañ dem Amérique temps yooyu ñi ngi sëy ñu dem Amérique njagane ma ñoom ñëpp dañ voyage yi te nekkuñu fi il faut que nga bàyyi ba ñu ñëw ñu regle ko ndax heure bii lu ma ci def mën na mën na mer bindal tele bi loo xam ne tele bi soxlaa gudd loolu ndax tele bi bébé la ma ne ko d'accord foofu tamit amatuma yaakaar ndax dama jàppoon ne su ma waxee rek automatiquement njaga daf ma naan non kon defal leneen mhm. mais li wax tamit am na si droit mhm. ma ne ok c'est bon yoon jeexul lu dul yàlla neen la ma toog rek benn jour ku tudd Abdou njaay woo ma boobu fekk na commencé naa génn sax sama xel ci tele bay xool leneen lu ma def ma toog salon Khady Ndoye HLM di defar sama bopp rek ku tudd Abdou Ndiaye woow ma. ba ma Abdou Ndiaye woowee ça va na nga def ma ne ko maa fi mu ne ma man la Abdou ma ne ko kuy Abdou mu ne ma Abdou Ndiaye 2STV ki ma toogal ne ma doomu El Hadj la. ma ne ko ah ça va na nga ma dañ bëggoon jël euh, dañ soxla woon rendez ak yow. ma ne ko ah yéen fan ngeen nekk mu ne ma 2S ma ne ko 2 fan la nekk mu ne ma banque xaw ma nan. ma ne xaw ma fii. ba ma waxee banque xaw ma nan man tamit ma ne du ma nekk sax di sonal kii damay couper laajte banque boobu fan la ne si Dakar ma dem fa su ma demee ba si banque bi woo leen. Mm-hmm. ma yegg woo ko ne ko yegg si naa mu ne ma d'accord temps yooyu bureau El Hadj Ndiaye boo duggee lépp ay mm-hmm. di wax di ngeen ko xam. loolu mm-hmm. ci même année bi la 2011. ma Kouthia indilee problème deful ko. Amina euh, dàq nañ ko TFM Amina lii Amina lii Amina lii waa 2S ma dem ba ma demee toog ak ñoom ñu waxanteeg man li nga xamante ne ñoom lañ bëgg bañ waxanteeg man li ñu bëgg fi ma toog di wax ak ñoom ba nga xamante ne dara desul pour man ma accordé pour liggéeyee 2 ma gis benn numéro 813 xaw ma tag-tag rek ma wuyu allo mu ne ma ça va kookan la euh, Endo ma ne ko waa kookan la mu ne ma man la Boubacar Ndour rek ma ne ñooñu est-ce que mën naa génn wax téléphone ndax sama waa kër ñoo may woo sama doom moo feebar hmm. boobu foofu laa tàmbalee foofu laa bëgg a nekk hmm. ma génn ba ma génnee ma wax ak Boubacar Ndour ça va na nga def man ko ça va mu ne ma Youssou Ndour ma waxoon nañ la laaj lan moo la dal ba li euh, ñëwatoo si tele bi ma ne ko man de Kouthia moo ma ne waa télé bi dàq nañ ma mu ne ma ah bon ma ne ko waaw ah, mu ne ma nu mu demee noonu ma ne ko ah man xaw ma defuma dara damaa jékki-jékki rek mu ne ma télé bi nee nañ da nga vulgaire bëggatuñ la dàq nañ la bu ma ne ma baax na léegi euh, suba 13h di nga am jot ma ne ko waaw mu ne ma suba 13h na nga ñëw TFM. Mhm. au lieu ma dellu ci ña ña ma doon waxal pour nga xam ne xale xelu xale mën na jàpp nit. Mhm. au lieu ma dellu ci ña ma doon waxal ne leen euh, réunion bi dañ koy wax bi dañ koy kii ba beneen yoon parce que man damaa am euh, sama doom dafa feer mais damaa dem au lieu ma def ko damaa génn rek daw. <laughs> déedéet ñibbi. suba rendez-vous lañ ma jox. da waxuma leen dara man dama jóge foofu rek daw dem ñibbi sama kër. <laughs> ba ma demee ñibbi sama kër suba jot ma sangu ba set sol sama yére taal sama moto dem TFM wuyu ji Bouba Ndour ma yegg si ne leen dama fi am rendez ak buuba ñu ne ma ok toogal xaar ko ma toog bureau Dorine Gueye Boubacar ñëw ne ma ça va na nga def ma ne ko ça va bien mu ma yegg si yegg si ñu toog ci benn fi ñuy defee journal euh, TFM mhm. ay weñ moo fa ne woon ñu toog ci ay type mu ne ma affaire bi naka la demee ma ne ko man daal Kouthia defuma dara chaque jour daf may invité benn kër attaaya ma bañ saa yu ma invité ma wax ko ne ko mënu dem tey mënu dem tey ba benn bés mu invité ma ma daw mu woo ma yegg sama kër mu woo ma ne ma télé bi dàq nañ la parce que yaa ma gën a xam famille Ndour tak tak tak buuba àdduwu ci ne ma ok mu ne ma soxlawul stress àddina loo gis rek opportunité la mu ne ma léegi dinañ xool émission xale ñu defal la ko ci la ma buuba nduur njëkkee créer concept boo xamante ne Bessel Bass lañ ma boole loon mooy tourner émission boobu génnul après ci lañ ma booleeg Aïssatou Diop Fall mu may defaral ay émission pour ma mën a génn ci tele bi def nañ luñ mën pour ma génn ci tele bi xam nga émission boo koy defar day jël temps ñuy tourner rek di teg di tourner rek di teg temps yooyu looloo amoon tourner nañ ak Oumou saw tourner ak keneen ak keneen jël yëpp mu nekk en boîte ba benn jour ñu ne ma dafa am benn émission bu tudd dakaar na door paa temps yooyu dakaar na door paa ñaatam moo ko doon def Ndey Ndaak ak euh, ak euh, Bessél ñu dugal ma si dakaar na door pa mooy sama première émission bu ma njëkk a def rek réussir ko mbuur laa ko defee suñ koñ naka laa réussir réussir émission boobu dakaar na door pa nit ñi naan mais indo ñëwaat na indo ñëwaat na affaire yi di jël ampleur rek ku caa xëy génnaat ne waaw temps yooyu maa ngi am copain bu tudd amoo Diop mu nekk Allemagne sama xarit la yar ma moo Kouthia ñoo bokk benn koñ HLM amoo woo ñoom ñëpp waa HLM woo Kouthia ko mais yow kii yaa ngi koy xas di ko wax ay cagate xamaloo ko dara dama def émission bi réussir ko rek temps maa ngi am benn opel bu tudd war ngeen ko xam bu rouge bi Médoune benn de portes bu rouge la mhm. nit ñi di ma tooñ naan ma léegi bàyyi nga moto yaa ngi ci oto mhm. ma ne ko waaw man gis ngeen nii rek lay doxee mhm. ku caa rek génn ñu taf sama oto ci internet bi naan waaw ñu ngi nii ay caga lañ jël favoriser ko jox ko oto ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk di def liggéey bu mucc ayub kenn joxuñu dara fii nekk fi cagaa gën nekk fi nit ku baax ay nit ne ma mais lii démentir ko ma ne leen ah comme ci loxoom laa jaar ba dugg fa duma ma démentir. est que moment boobu jéem nga woo Kouthia euh, laaj ko lan moo gën a nekk seen problème ngeen jéem a essayer toog yéen ñaar ngeen waxtaan. man gis nga Kouthia jour bu ma dàqee. Mhm. lu may wax bu dee du dëgg. sama yaay fu mu tëdd yàlla naa ko fa fekk gis nga jour bu ma dàqee jour boobu laa supprimer numéro Kouthia ba tey jii aw ma ko. Mhm. jour bu ma Kouthia dàqee uh-huh. jour boobu laa supprimer numéro Kouthia ba tey tey tey aw ko bu dee lu may wax du dëgg yàlla naa fekk sama yaay fu mu tëdd yàlla na ma yàlla rey jour boobu laa gëj am numéro Kouthia ba jonnos yàlla tey ndax man ku ma def lu metti ma bàyyi la man noonu lay dunde su may ànd ak yow ngor rek la ñuy ànde mais man dès nga def ma lu metti lu ma teree nelaw man dama lay bàyyi ndax Kouthia jamono jim may dàq metti woon na torop ci man nga génn télé ñëpp commencé laa xam mu dàq la ndax daf laa bëgg a may copain yam nga bañ mu ne ma TFM bëggatuñ la dàq nañ la ci laa gëj wax ak Kouthia ba tey jii nii te terewul Kouthia dañuy dajade si télé bi fu ma ko fekkee dama naan ko mais per nu mu demee mu ne ma waaw ça va ça va amul fit suñu bëti ñeent def naa lu ne pour Kouthia bëgg ma pour ñu seq jàmm ndax man maa ngi xool rek bés bi ma Kouthia indee ca télé ba mhm. Kouthia fu ma ko fekk damay ñëw fekk ne ko mais démb gis naa la mais toj man duma ma seetaan Kouthia mais fu ma ko fekk dama naan ko mais seetaan naa naan wooy dëgg la kay Kouthia du ak man mhm. da lay éviter fu ma Kouthia bu ma njëkkee gis sax duñ daje te man fu ma séenee fee Kouthia au lieu ma wiiri comme moom nu muy def man damay dem si wetam pour nuyu ko romb man duma ko daw defuma ko dara mais Kouthia fu ma seen daw Kouthia buñ mbëkkantee ci télé bi rek dafa ma yéex a gis kon Kouthia moom du sama xarit bokkuma ak moom yoon ci réseau lañ daje bañ dajee ci réseau xàmmewuma ko gisuma ko kon warul taxaw di ma waxal dara Kouthia bu ngeen seetloo émission bu mu def tudd na ci sama tur hmm. man émission bu ma def gërëm naa ko ci nee naa gannaaw yàlla ak yonentu beeg Youssou Ndour Kouthia la loolu même bu dul dëgg ci sama xol dama koy wax chaque jour te Kouthia émission bu def rek tudd na si sama tur maa fi indi ñoo xam ne ci lëndëm laa leen jëlee man Kouthia ci ban lëndëm la ma jëlee ki leen dajale fii muy yéen ñëpp Médoune Diouf la tudd Médoune xam na ma bu baax xam samay mbokk xam fi ma bokk man Kouthia fekkuma ci lëndëm Kouthia daf maa fekk may xale bu jigéen mel ni ma war a mel mu jël ma di ma jàppale am lu lal jàppale bi ba ma demee ba xam ne kii jàppale ma te yàlla tax am na lu mu bëgg ma bàyyi ko su saaga daga noonu dinaa ko wax lu metti tey mais du ma saaga ndax ñu baax ak may seetaan ñu bon di ma seetaan tey dafa laal sama xol su waxoon caga rek ma baal ko su waxoon Amina dëmm la ma baal ko mais la fait que mu yeewu naan Amina ak Viviane dañoo mës a marié wu man fii Sénégal ku fi nekk giwin yaa xam man ku ma fréquenté xam ne giwin nga man dama lay bàyyi man Viviane su ma ko xamaloon giwin du ma ànd ak moom barki naa Muhammad peut-être leneen moo ñu boole am naa droit su ma mënatul a nekk yow mais dama lay bàyyi kenn du ma kenn mais man Viviane ci xuloo bi ñu bëree bëree bëri dañuy ñëw waxoon nañ la ko yaay ànd ak ku ne ma ne leen mais yéen kii xamu leen ko uh-huh. man li ma joteeg moom yéen ñëpp xam ngeen ko uh-huh. mais ay affaire mais kii waa du lu sit du nangam ma ne leen man de kii bu dee mës naa koo gis mu laal dorog uh-huh. man yàlla naa yàlla bu ma dajee ngërëmu sëriñ Touba. lu may wax dëgg la de man faale wu ma kenn nit nag su xamee ne nii nga mel nam mel mën na koo nëbb pour nga pour mu bañ nga xamal ko ko kon man xamaluma ko bon moom li may coow yëpp baat yi ma wax TFM du ma tux du ma naan du ma caga du giwin loolu yàgg naa koo wax ba may ànd ak moom Viviane loolu sama sama slogan la man dañ jàppoon danga ko doon gaaruwaale mhm. da ngeen di dem ngeen xool émission yu njëkk yi ma def sans Viviane mën naa mer nag ndax lu ne ci xol feeñ ci kanam man ku ma xam ni giwin nga man duma ànd ak yow mhm. man je m'en ci lu nit doon sama yoon newut ci seen giwin mm-hmm. ku nekk giwin ak ku nekk goo jigéen ku baax ku bon man sama yoon newut ci ñoom mm-hmm. man xam nga lu ma ñor mm-hmm. du man je suis casanière duma jël sama àddina xañ sama bopp boîte nu mu neexee xañ sama bopp restaurant nu mu neexee xañ sama bopp ay xarit nga xam ne toog ñu lay waxtaanal nu mu neexee ma taqale sama bopp ak lépp toog benn imbécile bu mel ni ku Kouthia di ma yàq man te xamuñ ko ci man alors sénégalais yu bari dañoo am interrogation ci sa diggante ak euh, Viviane euh, tey mën nañ xam les véritables raison naam bu fekkee mënoo ci dugg sax au fond euh, li tax ngeen tàkkale leen parce que ñëpp dañu kontaanoon gis la ci wetu Viviane mais le fait que gisatuñ leen loolu mu suscité ay interrogation fii kilifa yi ngeen fi xam yëpp am na ñu si joteeg seen i doom ak seen taalibe waxu Viviane indiwuñu wuñu fi mm-hmm. loolu intéressé wu ma mi ngi ci sama gannaaw mm-hmm. li ma intéressé mooy li ma kuccaa def mu metti ma te am ay doom ami mbokk am ay xarit mm-hmm. man waxu Viviane ba ma ca paree teg ko ne laa ko teg ne man damaa bëgg xam ku caa xëy na yàlla dina def ñu dem ba daje ci kanamu yoon mu wax ma lu ma yabee ba teg baatu giwin ci sama der bii mm. tem leer ko ne li muy wax ay duul la waxul dëgg day fen mm, mm, alors ban réaction nga njëkkam bi nga yeewoo gis ojo bi ojo bi di tas fu ne ban réaction man ba ma gisee drapeau couleur yi dama tiit mais man loolu bugguma ko man loolu bugguma ko mais bi ñu ñëw ci ñu leeral dañoo dégg muy wax ne eh, bi ngay nekk ak Viviane ci tuuma yi ñu lay tuumal boobu yaa ngi nekk ci buum di sëy ak sa mois nga dem moom yow loolu xam nga ne sax amul ganaar loolu man daf may def reetaan réew mi même yi sax defe naa sëyuñ yéen da ngeen bë yéen yéen a bëgg waxtaan mais xam ngeen ne fii giwin yi fi nekk sax sëyuñ amul benn giwin bu fi takkante te gis nga yow li nga xam ci giwin rek laa xam ci giwin da koy dégg mhm. doxagoo ba fekk ñaari jigéen yuy sëy ah li ngay dégg góor jigéen yëpp doxagoo ba fekk benn góor jigéen muy sëy keneen xam dañ koy dégg mm-hmm. Mm-hmm. mais lu tax man ma war a tuumaal nit yi man en tout cas sama loxo ci kaw mm-hmm. man xaw ma loolu man duma ma giwin te kuy giwin mu leer ma man duma la fréquenté ku ci nekk giwin na xam ne bëgguma ko nekk sama xarit bu yeboo nga nëbbuma ko ndax bu ma ko yëgee duma la weer mais dama lay bàyyi ni ni toll ci accusation Amina Poté am tour am njaboot am ay doom ñu ñi di ko seetaan ñu jékki-jékki teg la yenn tuumay sa kaw sa diggante Kouthia yow lan nga naa def mais sama diggante Kouthia lu may def lu dul mais yoon atte ñu mais lii du fawekaay parce que loo xam ne daf ko wax ñu jël drapeau bu ma gën a bañ man man drapeau boobu man daraapo boobu dama ko bañ mhm. man taalibe sëriñ Touba laa luy tilimal yoonu murit du jóge ci man mhm. man bañu ma ko ma bañ de mhm. man tey mën nga ma xool duma la neex fii yéen ñu fi daje yëpp du ñëpp laa saf mais amul kenn koo xam ne ci yéen journalistes yi mën ngeen maa waxal dara fii nit ñi nëbbaluñ kenn Sénégal yéen ñëpp ku ci nekk ngi moytu ndax bañ sa ayib génn je suis pas parfait waaye lii di ay xetu drogue lii du ay yëfu giwinantu lii di ay ay ñu ñàkk fayda am jëkkër am far ay taxawaalu ñu lay tëddee gauche ak loolu du man fii yéen ñi taxaw ñëpp bari na ñoo xam ne xam nañ ma bu baax bëri na ci ñoo xam ne seen gannaaw caméra lañ ne mais ku leen joxoon micro ñu wax lii dama dafa ñaaw man sama yaay dafa gaañu bàyyi maak sama ñaari mag waaw sama ñaari mag yooyu yaru génn ñu tele waxuñ rajo am seeni njaboot lu tax man ma war a tuumaal seeni der est-ce que xam ngeen wax lu nit lu ñaaw nu mu mën a def ci fameem ku ci génn ñu naan la sa rakk bi giwin la wala sa rakk bi góor jigéen la mais loolu neexul fii nag ku ñu fi wax giwin ak góor jigéen génnoo defendre sa bopp xëy na yaa xam lan ngay bañ mu génn ndax fii moom ku taxaw ne duma ñu génne ko boo ko nekkee dana génn de fii moom kaay ma wax la archive yaa ngi fii xam nga lu fi nekk jàpp ci loxo nit wañ ko ne ko bàyyil mu sedd dafa njaboot mais fii ku ne am nga archive man ku ko am génne ko Mm-hmm. mais loolu kiñ ko tuumaal génnul xëy na dafa dëgër rek mën naa am du giwin mais yàlla moo ko may esprit dépassement te Youssou Ndour mën na dégg lu metti lu ne ci àddina mais liggéeyam mayu ko mu génn di wax mën na ko muñ du yaw da ngaa génn rek doo loolu parce que da ngaa génn bari na ñu ñuy tuumaal li ñu di waxal du dëgg ba pare ñu muñ ko noppiwaale ko ñoom dañ ko mën a muñ seeni doom miis ko ñu tàggat seen doom ci loolu yuusu nag moo yooyu muñ ndax ku am njaboot ju la dëfal am ndey juy dund di la dëfal am baay joo xam ne boo yëngoo mu ñëw taxaw am ay rakk yoo xam ne ponkal lañ ñi yow yaa yey dal ak sa entourage say xarit man aw ma ndey aw ma baay aw ma bu dëgër bu ma war a dëfal man li ma mën mooy di dëkk di satal sama dar ba keroog may ñibbi yow marxiyaam te <laughs> wax naa ko démb ci télé. ma mm-hmm. ne leen xaw ma ndax deux mille vingt quatre dina ma fi fekkam déet de mais lépp lu ma nit mës a def. Mm-hmm. muy ronger sama xol te du dëgg. bu yow marxiyaamee danañ ko la yoo te li gën a metti baalu nit mettiwul de dem baalu nit ki bala moo dee metti mais xam nga lu metti yàgg waxal nit lu dul dëgg ba mu wan la gannaaw mm-hmm. keroog ngay suivre les conséquences ci kaw suuf nit ki dem na tranquillement mais yow mi koy yàq ci kaw suuf keroog dootoo am jàmm te Kouthia nag dafa yàgg def lu bon yàlla da koy soog weer ndax lii yëpp sax waruma ko woon def ndax yàlla daf maa fayul parce que yàggul dara la taxaw ci tele bi coowu jàmbur ñu dugal ko ci biir coow li mu taxaw en direct def yëfu góor jigéen di ma saaga en direct di ma wax lu ko neex moom muñ loo ko yàlla yàlla atte ñu mu dégager TFM pour mu duggaat fa kilifa gu ne ñaan Youssou nduur pour Kouthia duggaat saraxu àddina bi yëpp la woo saraxu pour duggaat moom du rus ndax yow moom nee na moo ma indi TFM ci moom laa jaar ma doon li ma doon fekk ko fi presque trente ans de carrière doon li ma doon am li ma am ci réew mi njaboot ci réew mi kenn mënul xas sama njaboot mais moom tey nit ñi xamoon nañ na baaxul de mais tey ku caa xaslu na askanam parce que ay audio moo fuité te audio bu fuité weeraange suñ borom la lan moo tax mu fite jigéen la doon doxaan kon moom kum takk dala fen ba takk la daf ma fenal ñu jàpp ko fenal keneen ak keneen du man rek la waxal audio yi cent 110 audio la sama bos laa coppati man ndax man sama bos moom a ñor. 110 audio je m'en yeneen. mais waaw man sama bos moo ma ñor man sama bopp laay defendre sama doom yi ñu ngi may xool dama leen di jéggalu ci yi ñuy wax seen yaay ak samay mbokk mais dama leen di wax ne leen ñoom sax xam nañ ma. Mhm. ñoom xam nañ ne ma nekkuma ci benn nonsense ndax koo xam ne yéenay añandoo yéenay reerandoo kuy dugg sa kër xam na kuy génn xam na samay proches ñëpp xam nañ ma mais dama am ay soppe yu jotul ci man te toujours ñu ñu ne la sa soppe bi dégg nga liñ ko waxal kooku na dama koy rassurer na tëdd nelaw réew mii bañu ma ku ma xool ba jéppi ma mais kenn mënuma fee yàq ndax fi laa dëkk fi laa màggee te fii laa tekkee man am na yoo xam ne duma jël sama doom di ko teg lu metti pour mu baax uh-huh. man may déraper bu boobaa dina wéet ne sama yaay nii mu ma bëgg a yaree te melu ko pour lan doom mënoo koo yar te baaxoo uh-huh. soo bëggee éduquer sa doom da ngay baax ba pare uh-huh. fii ñi taxaw ñëpp tey dañ bëggoon a wax mais man borom dëj bi mën naa ko jooy may wax sénégalais yi ndax ku wax lépp di nga wax loo warta wax fii rek laa yem parce que li ma denc bari na su ma bëggee génn yëpp dinaa wax lu ñu ma xeebe li ci des yoon laa koy teg ci loxoom mu lijjanti ko ndax dëkk yoon lañu ne mais bëgg naa ñaan sénégalais yi lenn saa yu ma yeewoo ku ma bëgg di am naqar ci man maa ngi lay tuubal parce que bëgg koo xam ne xamuloo ko dafa metti mhm. ñuy teg ci daram yoo xam ne mënoo ko ko démentiral metti waaye man nee naa leen ba àddina di tukki mënuma garanti sama benn mbokk wala sama benn doom mais man mu Muhammad xam ne ne mësuma bon bugguma bon te duma mësa bon ba àddina di tukki loolu rek laa leen mën a garantil man waxuma sama njaboot beneen affaire bi ñuy wax ci man nañ ma yërëm tuuti parce que jigéen joo xam ne laa ay bu ngeen xamoon li ma yenu jàmbaar laa de aw ma ndey man du ma victimiser wu ah, parce que mënal naa sama bopp yàlla laa àndal. j'aime pas taxaw ci télé non aw ma yaay aw ma non non non su ma nee aw ma ndey mooy yërëm leen ma tuuti nag. parce que lépp man duma ko attan. ndax man sénégalais yéen da ngeen ma war a nag dangeen ma war a jàppale nag. parce que jigéen ju sàccul fenul naanul duggul ci benn nonsense saa yu ngeen yewoo teg ci sama der loo xam ne damay génn duulloo ki ko wax ne kii. dafa ma jiiñ giwin ku caa moo taxaw jiiñ ma giwin day fen dafa fen ba takk jabaram fen ba am ay doom ndax audio yii génn yépp ku ko déglu xam ne audio yépp da cee kàcc da cee kàcc tey man soo ma nee Amina da ngay naan ma taxaw démentir ko mais Kouthia bu taxawee ne man du tux du ma naan man damay taxaw démentir ko ndax man ba ma ko fekkee Obama lu flag la teg di ko naan ah, day fen mm. moom lu mu waxal nit rek mën nañ ko ko waxal Kouthia moo indi Ndiaye TFM moo ko jox naqar bu ko rey Ndiaye hmm? dañ ne dafa am problème mu foie Ndiaye Kouthia moo ko teg stress su àddina avant muy dee ñi jege njaay ñëpp xam nañ loolu fu njaay toog dalay lay nettali li ko Kouthia def ba dee hmm? keneen ku nekk noo loolu man xawma hmm. ndax li muy def ñëpp Kouthia da ngay nangu ànd ak moom nangu jóge ci wetam loolu lay dund moom moo ma indi TFM mais dafa dem ba supporteetul sama talent man mm-hmm. loolu moo indi coow li